mooy kuréel gi sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke tànn ngir ñuy saytu aka toppatoo mbooleem lu aju ci liggéeyu sëriñ Abdoul Ahad ci wàllu xam-xam ak waxtaan ak ya ci aju yëpp ñuy saytu itam mboolem lu war a jëm ci màggal gi ci lu ñuy jariñoo ci wàllu roo ak xam-xam kuréel googu nag ci ndigalul sëriñ Sidi ñoo ñëwati ngir waajal màggal gi berndeel yiñ leen daan berndeel ci wàllu roo ak xam-xam kuréel gi ànd ak yéen fas yéene leen uh, indil tomb yooyu mu daan ànd ak yéen ci ay témoignages ay fàttali yu jëm ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ngir ñu nafar ko fàttali ko ay jikkoom ak xam-xamam ak i jaar-jaaram nu ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Mokhtar ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno ak bokk yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi niki sëriñ Abdoul Ahad Diakhaté mi jiite kuréel gi ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Maam Asta ak bokk yiñ ko àndal yëpp ñu ñëw nag tey sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadel di kenn ci sëriñ Abdul Ahad waaye itam di xarit ci sëriñ Sidi di borom xam-xam macha allah nu bëgg mu dikkal nu ci diggante sëriñ Abdul Ahad ah, lan la nuy indil ci moom ci ay jaar-jaaram ci ay jëfam ci ay jikkoom ci ay meloom ak digganteem ak moom waaye itam diggante sëriñ Abdou Lahad ak alxuraan nu fas ko yéene dalal ànd ak moom incha allah teewlu waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin taslima subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziare mbokk yi tedd yi fi teew yëpp di teg ziyaare bi ak nuyoo bi nag ci borom jataay bi ak boroom màggal gi kilifa màggal gi mu di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax mooy kilifa ak yoon bépp mooy Serigne Touba ñu ñaanoon ko mu yàgg fi te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sago dañu fekke ko te ànd moom ci barke borom Touba danañ ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal Serigne Sidi Mouhamed Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad mi kilifa ka Serigne Abdoul di xalifa Serigne Abdoul Ahad ak njabootu Cheikh Abdoul rek góor ak jigéen mag ndaw te buñ tuddee sëriñ si di tudd soxna may laxat rek ñu bàyyi lañ ci des ñëpp suñuy bokk lañu suñuy wëlër lañu suñu mag suñu suñuy rakk fa nekk ak suñu xarit ñu leen ziare ñëpp ziare sëriñ Abdou Lahad yu yi fi ñëw di leen ci liggéey bi ñu boole ndax itam Cheikh Abdou Lahad ku koy liggéeyal ku la ci boole bëgg na laa dimbale ndax moom dundam nga lépp ab liggéeyal Sëriñ Tuubaa woon dundam nga lépp ak Alxuraan la woon dundam nga lépp ak murid la woon dundam nga lépp lu baax la woon kon ñu leen di sant ci loolu bu baax a baax ñaan ñu tàbbi ci ak bismillaahi rahmaani rahim te jeexale ko daanale ko ak alhamdulilah rabbil alamin eh, ndax eh, léppam di doon yiw tabarakallah mooy wax nag ni wax ci moom nag yomb na jafe na yomb na ndax loo wax ci lu baax rek la ci des ko ëpp mi ngi ne rek nga fekk géej nga tanq ci kook la ci des kenn xamuñu toll par rapport ak li nga ci jël moo tax wax ci moom yomb ci wet googu loo wax ci lu baax loo xalaat ci lu baax ci ak jub ak baax bëgg lu baax dimbalante bëgg lislaam am dignité xam boppam ci lu baax loo wax ci lu baax rek ma nga ci moom waaye jafe gi tam mooy loo lu baax la ci des ko ëpp moom bu ko defee muy lu jafe te yomb en même temps kon bu ko defee xanaa dañ ci barkeeloo benn benn kàddu rek eh, yoo xam ne kàddu yu barkeeloon ak kàddu yu feeñal yéene waaye li ngeen may li may wax yéen a ma gën a xam sax xanaa da ngeen a baax rek waaye eh, moo tax ngeen sagal ñu kaddu gi waaye li ma ci wax lépp yéen a ma gën a xam muy koo xam ne ngeen ko xamee dundam nga xañ na guddu na gàtt na eh, ndax boo ngeen xoolee soixante quinze ans la dund 1914 di fi ñëw njaareem jóge fi 1989 soixante quinze ans wa umri ilal jinaani aidu ndax daanaka soixante quinze jëm soixante seize ans la la la fi dund waaye dund ko fees nag macha allah fees ci liggéey fees ci fulla fees ci ak njub fees ci yaraate fees ci jàngale. Eh, eh, eh, ñu mën a wax ci moom ci côté yu bëree bëri digganteem ak njaboot gi digganteem ak mbokki jullit yi digganteem ak njabootu boppam digganteem ak dëkk bi digganteem ak islam bi digganteem ak alxuraan nga xam ne mooy thème central màggal gi lu ci dem ñu mën caa wax lu bare bare eh, bare li ci li li ko gënoon a ñor mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te naka jekk noonu noonu la mos a ak it yàlla may ko xàmmee ak ràññee àdduna koo xam ne damay wax ne Cheikh Abdoulaye homme d'état la ci waxee noonu ci waxee ngir leeral kàddu homme d'état mooy ku gérer mbooloo moo xam ne nga xam ne nga leen teer da nga leen di sayto xam fa nga leen jëlee xam fa nga leen jëmee te di ko ko def ci lu leer nekk un grand communicateur ngeen baal ma ci waxee bi maanaam mu ba mu la wax wax wax kàddoom macha allah ñëpp xam nañ ko bu mosaan wax bu mosaan tàmbali rajo bi ñu ne Cheikh Abdoulaye wax rek bu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah ba ñëpp daan teg moom murit ak ku dul murit ak ñëpp wax ndax wax ji day am solo am maanaa di dëgg goo xam ñëpp cee mën a jëriñoo mu koy defee façon boo xam tam bu yéeme la da damay wax ne Cheikh Abdoulaye mu maîtriser commune technique de communication dafa yéeme bu ngeen xoolee discours ba léegi rek discours bu ci nekk rek ni mu koy ni mu koy taxawalee waxuma la continue ba li may wax ci biir waaye farmoo ba rek mais def introduction def développement def koy parti def conclusion nga xam ne discours di gën a moderne ci àdduna noonu noonu lay mel. dama mos am benn xarit ndeysaan ci ci Maroc muy def thèse sur le discours du roi Hassan ma ne ko ah, am nañ ko xam ne boo ko xamante doo doo def doo def thèse ci Hassan II <laughs> waaw waaw ah, ndax na ni muy waxee eh, boo ko déggoon da xam ne Hassan II jàmbaar loolu waaye bokkuñu sax bokkuñu. waaw yàlla mayoon ko itam li ëpp ci discours am néew na nga gis xam laa di waxtaan yor ki wax yor kayit waaw bëriwul xam bu fekkee amee bëriwul <laughs> bëriwul te biir wax jooju na mu koy agencé waxuma dara waaye ak ay ni mu koy defee loolu dafa yéeme yéeme koo xam ne loolu doyoon na waxtaan waaw ay alxuraan ji mu koy defee ak ab yit bay bi sëñ bi ak xadis yi ni mu koy waxee dafa yéeme day mel ne bu wax aaya xalaat day mel ne aaya bay ñëw rek ne ko wax ne ko wax wax ma <laughs> wax wax ma ndax ba nga ko alxuraan sax bëgg def istishaar ci alxuraan waaye da ngay taxaw xalaat waaw alxuraan nag ni mu jafee rungi yéeg ni mu bare waaye moom du du hésité waaw lu ci bëgg indi rek da koy dala indi saa sa dama koy indi ñu net li xis bu gàtt ba damaa jàll ci benn point ñu eh, dafa am benn aayit eh, wax mu tabaski am ku jël si julli gi ndekee manière fan ko jël see am na xaw ayib mu mu enregistré ko bëgg dem nag di ko tàggu si pour pour mu dem nga ko Dakar def montage doon ko jàllale bi mu nag mu seetlu ne ndekk lim lim jël ci pénc ma daf jàpp bu baaxul mu a jaaxle nag ko wax sëñ bi sëñ mag ñu baax ji xam nga ko nettali mu ne bu ma ko waxee mu ne ko ah lu koy bu soo xaar mu wax ko sëñ bi mu dem wax ko sëñ mu ne ko ndax la mu ko doon jëlee ngi fi mu ne ko waaw mu ne ko fekk ne am na ko jëloon ci benn ma téléphone bu baax mu ne ko ndax la ko waroon mu ne ko am na ko na ko indi te ñëwaat mu indi ko nam ko waxee woon ci penc ma la ko waxaawaat ci néegam <laughs> te la ci suba woon li li ci ngoon gi nee bi ñu comparé ñaari ñaari wax yi dafa mel ni ko da ko da ko transmettre ko copier rek so sotti ko ci beneen cassette bi nga xam loolu ak may la waaw kilifa bu baax ne na daan wax ne sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad ni muy def alxuraan li ko sol la waaye ba ñu nekk ci daar gi nangam ak nangam loolu rek doo ci sañ a àgg moom <laughs> ñu ngi ko sol la waaye ba ñu nekk ci daar gi nangam ak nangam xam ne ni mu waaw muy personnalité boo xam ne tam nag euh, damay wax ne dafa dem ba li ñuy wax lugam lugam ci yoon wi lug moom mooy baylaat ba baylaat moom ku ko sol nga xam ne murit la suñu ñu sol yëpp rafet na kaar waaye ku ne mën na koo sol da nga seen baxana wengal seen baxana comme Mahfouz ni ñuy def nangam def yëpp waaye bàyyilaat moom murid rek koy sol waaw <laughs> bàyyilaat moom ko ko sol li nga xam ne murid la loolu damay wax ne mën na ci am brevet d'invention xam ne couturier yu mag yi ñuy def di inventé dara ñu leen cay euh, enregistré ko muy dem ci sa tur bàyyilaat bi mënoon na ko def ndax day yëri yu cosaane yoo xam ne ko sol la ñoo xam ne murid nga te bi nekkul Serigne Touba daaw ko sol nekk na Serigne Touba ab jëru sol ko dafa jékki-jékki dañoo xëy rek gis mu koy sol te moo ko inventé taille beeg ni mu mel baat beeg yi fi nga xam ne adapté climat bi xewal bassin yi nga xam ne gannaaw yàlla bassin moom war nañ ko war nañ ko jox droit d'auteur ñoom itam ndax ni ma ko ba bu ko njit lay lu ko doon waaye moom ni mu ko xewale moom far ba ci kol ga sax mu def ko bassin far waaw ba noppi indi indi indi coupe ñaw bi muy muy yéeme di culture murid boo xam ne foo ko soo ñu xam ne murid la indi personnalité murid boo xam ne am na jamono na diggante yoo xam nekk fa murid de daan xaw a doy waar waaye ci nekkam li ñu ñemee nag ñeme ñeme goo xam ne ku nekk murid da nga ndax boobu ni ko fësal ak ni mu ciy mu koy wanee waaw muy loo xam ne lu yéeme la boobu côté képp boo ci mu itam doy ne nga xool yoon yi ni mu ko delloosee suñu Fallou Mbacke dana wax ne moom dafa dafa lewet mun ñu dañ ko miin ba maam la waaye bàyyi dina ñëw yar leen fi ne boo seetloo àdduna sëpp bàyyi laat la ñuy wax doo dee kenn ku ne maam laat wala <laughs> ñu seen maam sax duñ ko wax maam waaw loola euh, la la magab ju baax ji ne woon man maam laam ñun ngeen mu noppi waaye bàyyi dana ñëw yar leen waaye dafa ñëwee ñëpp xam ne ne yar nañ waaw ndax raxas mu ci yoon yi def ko ci dëkk bi moom ké kéemaan la xam ngeen ko baax li ma bëgg a wax dëkk bi am na waar lool yu bari bari xewoon na fi daan na fi xew waaye moom bi ñëwee ni mu ko delloosee xam ni fi ñu toll Touba am na certificat boo xam ne ci àdduna mooy bu ñu ko mën a wax zone non fumeur bi gën a rëy ci àdduna si mooy Touba àdduna si dem di dem ba da nga xool na mu jiite woon àdduna jëlee naa sax charia bi ko jiitu woon nga xam ne na euh, pon wax waaye sàngara ak yooyu kenn kenn wérante moom wax nañ ba tey bind nañ ba tey dama ci waaye waaye cigarette ni mu ko aayee ci dëkk bi nga xam ne léegi àdduna si dafa dem ba baar yi sax dañu ci ay tux far baar baar yi xam na oto yeeg saxaar yeeg barab kii mais baar yi sax da dañuy aayee ko ci tux xam nga loolu jiitoo dëkk bépp mu aayee ko fi nga xam ne dañoo dox bu ñu bu gën a ci àdduna si mooy Touba dëkk boo xam amul cigarette wala koo fa def da ngay nëbbatu kon bu ko defee loolu di di ndam loo xam ne eh, liggéey nag Sëriñ Tuubaa liggéey bi rëy rëy liggéey liggéeyal ko ci taalib yi liggéeyal ko ci njaboot gi liggéeyal ko ci dëkk bi dëkk bi nag moom day wax ne foo gëstu gis lu seen laa def su fekkee lu def lu ne a day wax tey foo romb da ngay dégg daan la maa ngi nii maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi waaw ci jumaa ji ci dëkk bi ci daare kaamil ci université bi kër Sëriñ Tuubaa gi lotissement dëkk bi forage yi lamp yi mu armel yi yi bees yi mu defarlu loolu lépp rek lu ci nekk rek réalisation la yoo xam ne Eh, yéeme na ci réalisation yooyu naa ci wax xis bu doy waar mu te léeg-léeg mu koy faral di nettali eh, ndax njàmbaar gam ci def ak doylu ga ak fitu ak xam sëñ Tuubaa dafa am benn eh, benn mbokk nekkoon ko Abdoulaye Doucouré dafa nekkoon mudir maktabul iqlimi rabit alam islami ci Dakar ma liggéey sama mondial nekkoon directeur bi Dakar moom dafa dafa jaxasoo nag benn ambassadeur bu Arabie Saoudite bu nekkoon dakaar ku ñuy wax Abdourahmane Al Toubèche ñu ñu fàttali ndeysaan nee bi Sëñ Abdou Lahad nekk nekk ci projet yooyu maanaam bi muy jokkale jumaa ji tabax daaray kaamil dafa waastar xëy di dafa ay no raxmati mu defar kër Sëñ Tuubaa gi fi nekkoon Dakar mën nañ ko tudd léegi ndax faatu na yàlla ko yàlla yërëm def na Dakar fukki at ak juróom-ñaar musta ñëw Touba di ko dégg rek Touba mu yàgg ndax li may wax Abdou Abdou Wahab Doucouré moom moo ko nettali Abdou Wahab dafa àndoon moom bi mu ñëw Abdou Wahab Doucouré waa Mali waaye dafa nekkoon directeur bureau Ligue islamique mondiale bu Dakar jaxasoo jaxasoo ambassadeur boobu Arabie Saoudite boobu Dakar fu mu san jëm këram ñooy ànd nee na benn bis moo ko ne ko daa bëggoon dem Touba ndax ñoom ay suufee ndax su ko defee danañ mën a nga rusaa mu ne ko waaw ñoom ñëpp lañ fi nekkal dañuy woote rek wutante bëggee mën ngeen ñëw mu ñëw amba ak ñeneen ñu ñëw s am ñu leen sëñ bi booleel ci mbokk yi bokk nag sëñ Modou Mamoun Niang ak sëñ Moustapha sëñ Saliou ak sëñ Saliou ambassadeur ñu ànd dem xool projet yi ma lay wax xool yokk bi ci jumaa ji xool daare kaamil xool kër sëñ Touba gi xool université bi ko bi ñu toogee ba noppi ba ca ngoon bi ñuy tënk nag sëñ sëñ bi nee na mu laaj ambassadeur bi noo gisee dëkk bi nag nee na bi ne ko damaa am ñaari yëg-yëg yëg-yëgu mbett ak yëgu kersa loolu mooy lan mu ne ko yëg-yëgu mbetteel bi mooy am na fukki at ak juróom-ñaar Dakar mosuma ñëw Touba ndax xam nga yooyu ñu nekkoon rek maanaam digg Touba nag da gis image yi gis jumaa ji gis photo yi mais yaakaaru moo ne agsi fi mu ñëw gis jumaa ji bu a war la ma fàttali a yéem mu ko jumaa ji nekkee àggoon na depuis 63 ba sa mag Mouhamadou Fadil jiite woon ko daan ko julli booba léegi ñu ko julli ajuma yéen moo ci rola nga koy yokk gis na gis naa projet yokk bi mu ne ko yéen moo ci rola yaa ngi def daara kaamil bibliothèque bi yéen moo yaa ngi def kër Sëñ Touba yéen moo ci rola yaa ngi def université mu ne ko loolu mooy mi ak ak ko wax mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ci sàkku ndimbal mu ne ba yi fii fi mu toll mais mu ne ko kerse gi mooy li ñu yàlla may alal benn dërëm mësa dugg loolu mooy kersa gi mu ne ko yaa ko waxal sa bopp de <laughs> mu ne ko waaye nag dama la am lu may ñaan mu ne ko lu mu doon mu ne ko dama bëggoon erreur boobu ñu def nga dimbale ma ñu soppi ko ma ma ñu dadaatal ko ndax kooku moom ambassadeur boobu itam ba tey ambassadeur la euh, yàggoon Dakar waaye dafa bokk ci daanaka famille royale na ci rakki roi fi nekkoon ku ñuy Amir Majid moom moom ñoo bokk benn ndey nga xam ñooy Al Toubache Al Toubache ak Al Saoud ak Al Cheikh ñooñu bokk na ñu coalisé woon xeex Arabie Saoudite ba créé état ba ñoom al al Touré dañ fa am doole lool nga xam ne am na koo xam ne doomu Abdoul Aziz la moom ambassadeur boobu ñoo bokk benn ndey léegi ambassadeur bi wax sëñ Abdoulaye li muy li muy wax ne ko daal ñaari sentiment ak ak ak ak ak ak kersa mbetteel li ngeen def daanaa ko dégg waaye mosuma foog ni daanaa waaye xaw yaakaar moo ne fi agsi na fi ñaareel ba ñaareel ba mooy kersa gi mooy mu ne ko yaakaar waxal sa bopp de mu ne li ma lay ñaan mooy dama bëggoon mu ne ko roi dafa wax ne lu ñuy def Sénégal ci islam rek boo ma ko waxee ma financé ko jamono yooyu ñu ngi waajal OCI bu njëkk ba xam ngeen OCI bu njëkk ba saw yéen ko financé fii ñuy wax King Fahd Palace ambassadeur bi mu lay wax moo ko dox nga xam ne dañu euh, roi Fahd moo ko financé moo tax ñu tuddee ko d'ailleurs dañ caa dugal sax ndax euh, ba neen ko waxee ñu ne ko amuñu fu ñu taal gan da jox projet bu ngeen ma jox ak suuf rek ma tabaxal ko gaa yi dem jox projet bu rëy lool bi ñëwee bi ñuy tabax ñu <laughs> ñu gëf këfin ko xam naa ba mu toll ne mais le roi finance financé woon ëpp na lii léegi nag mun si Abdoulaye nag dama bëgg léegi ni may ni may dabaatee loolu nga jox ma sa projet muy léegi yokk ci jumaa ji daara kaamil ji ak sëñ tubaa gi ak université bi ak ay no rahmat yi yëpp mu jox ma jox ko Fadou wóoram dana ko financé ba ma jox ko si caabi ñu ngi dabaataleel ko loola waaye sëñ Abdoulaye ci full jë ak personnalité ba mu ne ko mën liggéeyam suñu Tuubaa ma jox kenn dama ciy nekk lu ma am def ci li ma jox def ci bu mu àgg waaye dama ko jox kenn xalaatu sëñ Modou Mahfouz yi ak sëñ Modou Lo nga nga bu ko waxoon loolu dañuy dem waxuma plan yi ñu defoon waaye dañ koy multiplier par dix te boobu Fatou lu mu ko wax mu def xam nga Arabie Saoudite yàlla may na leen dafa xol bi dafa rëyoon te dafa bëggul Sénégal mosu fee ñoom dafa bëggul Sénégal waaw ambassadeur boobu nee na ma bi aussi bi daf ko ne suñ doon séddoo gi yéen suñu reer sax danañ ko séddoo ngeen def aussi waaw waaw nga xam fi ko àggoon kooku nag xam nga kooku fi teewal bu ne jox ma sa projet yi yëpp man liggéeyal na ko ba jox la caabi nga naan ko xalaat liggéey sunna bi ma ko joxe loolu loolu ci ci ci laa ci laa ko mos a dégg ci laa ak doylu ak doo xam ak xam sëñ Tuubaa mu ne ko man liggéey sëñ Tuubaa du ma jox kenn dama ci nekk lu ma am def ci li ma jox ma def ci àgg jàmm waaw nga xam kooku kooku beneen mbir la mais beneen mbir mu jaar ci yu mel noonu nag yi bëree bëree bëri nag ci ci ay kilifa yoo xam ne eh, jaar naa ñoom foofu defal leen loo xam ne teraanga ja bëri woon lool nga xam naa loo xam ne teraanga bu ñu duut yàq day mel ni day mel des na xam te da ngay ñam sax lu ko daan defal lay wax nañ tàmbale ci raxasu raxasu mi maa ngi fàttaliku benn bis ma dem fa am kilifa yu ma àndal dafa ñett nit la mu am ku woo mën nañ ko tudd sax ci maa ngi nekkoon ku ñu wax Matar ñu bari ci ma xam nañ ko xam mu ne ko Matar indil ndox foofu mu dem indi keesu boisson maa ngi fàttaliku gazelle ñun ñett lañu woon sañ bi ak ñaar ñu mandal wala ñett ñu mandal mu ñëw mu ne ko mu ne ko ubbi ko mu ubbi ñetti butéel ubbi jox ke jox kee jox ke daal taxaw mu ne ko dem nga ubbi ko moo ne bëgg na mu ubbi kees gépp far rek <laughs> te ci ñett ñi fi nekk ñëpp xool ñeent ku ne jox na la butéel bu nekk nag ne tekk nag xam nga jarul mu rek ne tekk ak ak ak caab ñu biir butéel yi ne tekk mu ko dama la ko ubbi <laughs> xam ne teraanga jëlee si jublu waaw mooy li nga wax ne teraanga bu niruwul yàq rek des na waaw de mooy daan wax ne da ngeen ñii dañuy def dafa yàq nit day ñëw kenn wala ñaar moo topp te leen teraanga dañ leen defal ñetti xar wala ñeenti xar ne xam naa ne ñetti nit mënuñu lekk mën xar sax waaye teraanga ji laa laa ko dugg laa ko duggee day loolu da ko def ay yoon ba gis nga suñu mbokk yi sax ñu ba dañoo tàmmul bu ñëwee Tuubaa bu ñuy dem seen oto na koy def bu ko dugal ci ba <laughs> na ko ba tay ba tay waaw ko ba tay euh, yàlla mayoon ko nag xel moo xam tam damay wax ne kii kéemaan la zaka o àqal yi saara mis la wax yi am na fu ko sëñ bi waxee loolu sëñ bi rafetal na ko waaw ni mu li mu xam kaar ak li mu am ci ko ak li mu xam ci xam nit moom dégg na sax dañuy nettee daana wax ne su ma nit di wax ci biir nopp nangam loo xam ne du dëgg day mel ne keneen damay wax ci benn nopp ba muy wax di amut <laughs> nga xam ne xam nit ñi xam goo xam ne te loolu expérience bi la dafa bari fu mu jaar xam adduna xam xam xam xam diine xam sëriñ bi bëgg sëriñ bi fonk sëriñ bi waaw kon bu ko defee ñu mën a wax ci facilité réew mi nag maanaam réew mi ñu ñu ci ñu ci fasciné du caagee nu murid yi rek du caagee nu njaboot gi du caagee nu dëkk bi waaye réew mi la la la la la la fasciné dafa am benn euh, euh, mbokk irakien boo xam ne ne fi mu gis photo Sëñ Abdou Lahad kooku sax mos a fa waaye dina bëgg wax ci li mu facilité ji nee na dafa nekkoon coopérant euh, fi ñuy wax Bangui centre Afrique nee na ambassadeur bu fa nekkoon ambassadeur soo taalib bi mu rek waaye mu tam Sëñ mu def photo Sëñ Abdou Lahad ci saalam coopérant boobu professeur la ci université Bagdad am même di imam ci jumaay Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na bi mu ñëwee gis ko nee na muy xool photo ne ko kii ku mu yàlla kan la nee na mu commencé expliqué kii doomu Cheikh Ahmadou Bamba la mooy Cheikh Abdoul Ahad mu ne kii xam ne noonu la yàlla dogale ba kooku mujj na dem a dem ba ñëw Sénégal sax ba ñëw Touba Sëriñ Saliou waaw waaye nga xam ne ko personnalité bi rek photo bi rek ba ba ba day message waaw bu waxul dara sax photo bi day message waaw bu ko defee te it boo xoolee par rapport ak Cheikh Moudou Moustapha ak Sëriñ Fallou ju ko jiitu ni mu ñoom ci âge nga xam ne ci zahir am nañ ay ay ay tout ma wax ay leer yu yoo xam ci ñoo ko mag soxna benn sëñ bu Karim ak sëñ Cheikh Fatma ko a feeñ mu ne mag safa ñoo ko a feeñ ci a <laughs> ñooñu sëñ Abdou Karim soxna benn Fallou ñooñu ci saa a feeñ waaye ni feese jamono rek ak jamono yooyu ak sëñ Fallou li fi ne boobu fu jógee nangam nangam nangam waaye gis ngeen mujj gi diggante bu gàtt rek mu àgg foo xam ne mu kéemaan la xam ne kon ku ñu waajal bu yàgg la kon ku ñu waajal bu yàgg la mu daan ko doxee ñu wax dafa am wax bu bu sew te xóot bu mos a wax Sëñ wax na ci lu bari bari jaxasoo nag moom lool dañ ne Sëñ Fallu ñëpp xam nañu lu mu ñaan yàlla def ko mu ne waaye cat da ca dal Sénégal mu ne cat la mooy bu ñu yëgoon dañ koy wax mu ñaan xaalis xew yi dañ aajo yi faju <laughs> xaalis xew yi te aajo yi faju xam nga fër-fër ji këran këran yëpp xaalis ko waral <laughs> bu xaalis xëyoon moom aajo yi faju kon àdduna daal nekk na fa laay rek ba dem àjjana. kenn du jàmm xaalis. waaw gën a waaw fi mu co coono ci xaalis ko waral ba sax la ñu baax baax léegi xam nañ xaalis léegi <laughs> léegi xam nañ xaalis bu ko defee koo xam ne. dañuy dañuy wax ne fulla ji ak positif yi dafa dem ba wàll ko sax ñu turandoo yi. dañ ci nettali anecdote bu saf xorom xam nga bu nekk tubaab beleel. daa léeg-léeg yor-yor bi day génn ci penc ma. toog ci garab yi te moom day toog ci suuf garab bu nekk du laal dara di toog ci suuf léegi mu suunu sax ci suuf bu toogee ci garab bu ñu ko ba bari bari xum mu jógaat dem ci kenn garab ñu ne am benn bis nag mu a xum mu jóg dem ci kenn xale di ñëw jóge ci génn kër ni la di ñëw jëm si ko mu ne ko bul accéder mu ne ko mun jëm si mu ci yow sama kër bàyyi dafa nekk fee may jàll mu ne ko lu tudd mu ne ko Abdoulaye mu ne ko waaw kay <laughs> ne bu bu agsi nee na ngeen toog fa tool mas mu ne ko man jëm suubu ci yow dama jóge sama kër ba ñu yónni ma fii ma lay romb waaye jëm suubu ci yow mu ne ko nu tudd Abdoulaye mu ne ko ok <laughs> dafa dem ba wàllu ko turandoo yi sax waaw wàllu ko turandoo yi te léegi wax ko tur ñun mu nuru ko ñoom ñaari jikko loolu yoon nag te defe naa ne eh, ñu ko ñu ko waaw lu ko jiitu Sénégal moom dañ ko daan déglu Abdoul Ahad nangam ci li koy histoire yooyu ku dëgg moom defe naa ci moom la ñu ko njëkk gisee waaw moo ko njëkk Sénégal te li ko yàlla def ci turandoo ci Sénégal bari na lool mm-hmm. ñu ngi fi ëpp turandoo bariwul am na sax ñoo xam ne duñuy duñuy taalibe murit te te te te tuddee nañ ko tuddee nañ ko ay ay turandoo mm-hmm. bu ko defee muy koo xam ne nag man yàlla dafa dogal eh, ma xawoon ko miin te bu yàgg ci Daaru Salaam xam nga suñu mbiru maam mi ñu tuddee ma yaroo fa daroon xaritam xam nga sax ay leeral am na ci ko tudd ma mun am na tudd mun maa mun léegi mu daan fa ñëw nag eh, xam nga ni mu yàggee am yërmande rek ni mu amee ñewante ak yooyu rek nga xam ne gars yi ma nekkoon ci daara gi sax bu ñu ko séen dañu amoon sëñ bi maamoon sa bàyyi ñëw na nga xam ne am euh, fi mu daan dal oto bi dafa am fa gars yi xam bu jógee daara jëm jëm sëñ bi dañ koy rob bu gars yi seen oto bi daal demoon sa ñëw ndax ndax moo fay dem ànd ak ñoom bool yi ñuy jox ak xaalis bi ñuy jox <laughs> dañu bëgg leen ci jël <laughs> saa mu ñëwee ko bu doon ñëw bu doon woon añ ngaa mu ne ko mu doon seet dama seet bool bee wala mu doon woon reer ngaa dama seet bool bee waaw nga xam ne te loolu bu yàgg la année 60 yi la 62 63 64 jëm noonu wallaay Eh, gannaaw bi mu am benn mbokk boo xam ne eh, ñaari anecdote pour nga xam ne du fàtti sama waajur jigéen mu nekkee fii ne dafa am benn bis mu ànd ak mu ànd ak eh, sëñ Omar Bousso suñu mbokk mu nekkoon fii ak ak soxna ak soxna Abdou Bousso waajuram ñu dem si ji ko xam naa nag sëñ Omar def na ne sëñ am du ko du ko xàmmee mu koy nuyoo nangam kii diw la kii diw la kii soxna doom soxna Dieng nangam nangam mu ne kii kooku xam naa ko bu yàgg ci ko sëñ Fallou yéen yaa dégg muur mun a ne maa ngi yor fii ay lettre mu daan bind ndeysaan man ma bu ñëwee vacance mooy dem dama koy tàggu bindu ko rek man xam dafa nekk préfet Kaolack defe euh, de sëñ bi xamu mu ñëw i soxna si ne ko dama si mu da nga laaj ko ñu wax Cheikh Goubé Cheikh Goubé mu xamoon na ko yàgg fii ci kër sëñ Fallu ne bi dafa am ko ñu waxtaan ci garab gi waaye bu noppee rek mu yóbbu la ca nee mu toogee mu sëñ bi xëy feex mu de wax ko mu ne mu ne ko naag si defe ngeen ko nee na mun yow kii Madiang Khary Dieng la nangam nangam taalibe suñu faa bi nangam nangam mu ko bu yàgg ba may góor Daaru Salaam Tuubaa ba am fa ñetti bu <laughs> ñu xam xam woon naa ko ci kër suñu fàll boobu day gone nag waaye xam woon naa ko ci kër suñu fàll waaw nga xam ne maanaam la bëgg a wax ko cee may waaw loolu moo loolu sëñ bi bi lii xamu ko woon bi nekkee ci waaye nangam ak nangam waaw maanaam sëñ bi lii dañ ko ko sol ko sol waaye liñ ko sol dafa bari waaw yu ñu ko sol dafa bari eh, mu mu feeñ ci wàll gépp nag ci doxalinam digganteem ak alxuraan eh, doxalinam ak ñu ko wax digganteem ak njaboot gi digganteem ak yoon yi digganteem ak kilifa yi bokk ci yoon yi nga xam ne ku ci ne seqoon naa yow ay teraanga yoo xam ne bu la teralee da ngay tiit waaw bu la teralee da ngay tiit te itam eh, da koy def ngir yàlla waaw du ci seet ba xam yow da nga ko delloosi wala doo ko delloosi wala wax doo ko wax da ko sant am solo ci la yar ak njabootam nag ndax njaboot gi fa tabaarakallaahu li ko tàmbalee ak seen siidi ba ñu ci des ñëpp mosuñ ci dégg kenn ci lenn lu noona loola lu ñuy wax sant yàlla la te gis ngeen daanu maanaam daanu ñu tuddee daanu ko def nga xam ci mujj gi njabootam góor yëpp seen tool leen tuddee njaboot gu jigéen ñëpp soxna jaara kon bu ko defee rek nga xam ne kooku ma ngay wane yoon ma ngay wane yoon wane ak bëgg sëñ Tuuba wane ak ak ak ak topp sañ Tuuba wane ak doylu ci sëñ Tuuba waaw ndax xam nga ne ku toll ni roi arab saoudite comme ne jox na sa projet yi maagale la ko te ambassadeur bi la koy wax wóor na boo ko joxee dana ko jox nga ne ko man liggéey suñu tubaab du ma ko jox kenn loolu loolu doyul mën a ko weesu ñu bëri bu leen ko waxoon neneen la ñuy doxalee neneen la ñuy doxalee gis ci ay kaamil li mu jàngalu mu li mu li mu def lu ci xasida yi xasida yi li mu ci mokkale ak li mu ci daan jàng dafa dafa yéeme lu mu ci def istishhaad di du ko xalaat waaw li muy wax rek mais nag ko wax ma maa ngi nii béytuwaa ko ko maa <laughs> nii waaw loolu loolu Eh, moo tax ay discours am rek luñ mat a mat a lu mat a gëstu la waaw lu mat a defe naa def nañ ci ay ay liggéey waaw waaw mu ngoog waaye liggéey yu yu mat a yu mat a gën a xootal la yu mat a gën a ndax mën nañ cee jariñu ba tey ndax saa bu ko boo ko déggee maa nga jàng ko day mel a ko wax waaw day mel jàng la ko wax te wax ne eh, eh, yàgg na àdduna waaye guddul fan lool ndax soixante-quinze ans daanaka ci sax bi bëriwul daan te mooy bi nga xam ne li ëpp ci wàgga sëñ moom lañ dund sëñ bi moom la dund moom la dund waaye nit ñaa ngi koy dépassé léegi dem ay quatre vingt quatre vingt dix quatre vingt cent yàlla yàlla ñu yàlla yi ci dindee at yi muy sàkku xam-xam ak at yi mu toog biir suñu da ngay fexe da ngay gis ne la moom dootu lu mu liggéeyal réew mi waaw bu ko defee rek eh, ñaan rek bis bi ñu àgg ak jàmm di ñaanal suñu si itam yàlla yàlla yokk yokk yokk yokk wér yàlla gudd la fanam guddal suñu fan ñun ñëpp yàlla aar ñu njaboot yi waa te yàlla taas ci barkeb Cheikh Abdoul euh, dafa am ay jamono loolu da daaneel lu xorom sama diggante ak moom la moom tam bu yàlla dogalee euh, ñu jógee ci njàng mi dafa am ay projet bu ñu fa doon xalaat waaw sam mu rëy rek ak ak xéem euh, maanaam ci gàttal dafa am projet hôtel boo bëggoon def fii Touba plan sama yëf yi faa nag am sama terrain am autorisation boog yëpp amoon naa ko mais nag bala ma ci def dara rek dama ci waxtaan ak bi la sàkku ci ndigal bi ma ñëwee nag xam nga kuy doon doon jóge ci ñàggum droit rek boo waxee nit da ngay defee ne li ngay wax moom da nga ko mën ko convaincre <laughs> may wax ak moom gis gis muy muuñ rek ne quoi ndax day am loo xam adduna day dox boo demee Madina mën a war a am na dalukaay nangam nangam makkatal mu ko rama am na ko te ñu ngi ci saaba te Touba mooy Cheikhu Madina nangam ma gis muy muy muuñ ah, tey da xam naa affaire bi moom moom ma waaw léegi dama xalaatoon nag dafa barab yoo xam fu ñu dalal ay gan daal ndax dëkk bi dafay xaw a xat xam nga suñu kër yi d'accord kàlla ni mel kii na waaye day am ñoo xam tàmmuñu ko bëggoon nag fàggu barab yoo xam bu ñëwee danañ fa mën a dallu nangam nangam mu nekk mu nekk barab yu ñu yaxantu bu ñu liggéeyee ba noppi am dara mën cee kii wax mu ne waaw mu déglu moom noppi mu ne waaw loolu de baax na lool waaye nag gan maanaam eh, eh, nim la ci nim la ci tege ci yoon ak ak lam la ciy déel mooy yéeme mu gan day ñëw ak jikko ju soob jikko ju ko jikko ko soob ku ñëw jikko ju la soob nag kenn du la indi fu ñuy wattu te yow ci ñi war a tëkk bi nga bokk dool bu ki dimb rek maa ngi xool pamaat pamaat bi ko dugal ci dimb bu wéy ba rek maa bu nekk ci daji te architecte Moussa Fall moom defal na plan yi xam Moussa Fall moo ko daan defal moo doon defal ñoo ji mu rak ko def étude yeeg plan yeeg yëpp ba ne nag ba contacter banque ba ñu toog ba ay financement di ñëw nag da daal moom ndigal la ci des léegi mu waxa waxa bu ne mu ne waaw euh, gan de mu duma mën gan day ñëw jikko ko soob ku ñëw jikko ju la soob nag doo des ko fu ñuy wattu yow ci ñu war a wattu bi toogal rek daje xéewal da nga daje xéewal googu nag ak toogal rek boo ñëwee laa lem def ci teg ba léegi mu ci mu ci nit mu mu njàngalee waaw waaw raisonnement bi ngay dégg raisonnement bi gan day ñëw jikko ju ko soob te am waaw te ku ñëw jikko ju la soob kenn lu yóbbu fu ñuy wattu waaw fu ñuy te yow ci ñu war a ñu dëkk bi nga bokk ginnaaw dafa fay bu xasee fay nan dama fay sama xaalis. waaw sama waaw waaw dama fay sama xaalis rek yow seen yoon nekku ci la may def kii nekku ci yoo xam te noonu la jàngalee réew mépp nag képp ku mos a jëflanteeg moom ku mos a jëflanteeg moom noonu la jàpp jàngalanteeg yow def dara lu ñuy lu ñuy lu ñuy xebete yoon wi wala dara lu ñuy yebe yoon wi wala dara loo xam ne ko gis ne ah xanaa nangam ak nangam waaw am na jamono mu mu nàccee daaneel dañu fay ndatt ñu jël moom may liggéey lonance dama faa def semaine génn ci lonaas genn mooy daal waxuma la sëriñ bi waxuma la Tuuba waxuma la alxuraan ji waaye Cheikh Abdoulaye bis bu digg maa nga lonaas xamu lu ma koy jàkkaaroo moom ak lu ma koy wax bu ne ma fi def xam ma nga xam loolu bokk li ma doon tax a bàyyi te boobu mi ngi fi waaw fi muy koo xam ne sax bi ma ko mujjee gis ak bi mu laa a wax ne semaine daanaka semaine wala ñaari semaine boo xam nga ci koor ga xam nga ci koor gi la dem fekk ma dem fa di ko ziare ji a daaj moom la war moom koy tàggatoo ak moom pour mu ñaanal ko pour mu dem Maroc vérifier ko collection yu mujj yi eh, moom la moom yàgg lool ndeysaan ma door a dem nag joxaare ko kaamil te yàlla dama dimb loon itam saa bu ma koy ziare dama ko jóbbul kaamil waaw ndax xam ni mel ci alxuraan waaye ma gis saa ko joxee ci dënn bi da koy teg na sëñ bi tuwaa def xam keroog kaamil bu ma yóbbaale gannaaw ba sa gis naa ko mu naan ma mu du ma sa kaamil bu rafet sa kaamil bu rafet na lool mu ne ko yàlla waaw léegi nag ci lañ ko ziare noonu ci koor gi xam nga ba ñu war a rek la dem tuwaa bilal après dem Maroc ñoo bokk avion waaw bi ñu fi jógee dem Espagne eh, am fa semaine dem Italie fa la ñu xeexee bu fekkee mu di 89 eh, xew diis lool diis sa bette lool te metti lool ndeysaan waaw bu ko defee rek mooy koo xam daal sëñ Abdoulaye ni ngeen ko mën a xamee daal mën nañoo wax lu bari bari ci ci ci gu tedd ga mën nañ cee seede yu ba dama tënk rek point yu bari waaye li ma wax lu nekk point bari loo xam mën na caa jëriñu waaw ci digganteem ak mbokk gi digganteem bi yoo xam ne lépp relation respect ak euh, ak ak ak ak xam boppam waaw ak personnalité murid mu imposé nag moom waaw personnalité boo xam ne moom fi nekk de ku bëgg nuru murid sax da nga da nga da nga sol <laughs> waaw boo solee baylaat rek ñu xam ne kii murid la waaw te am na jamono loolu ñu bari dañ koy moytu boo dee murid sax a nëbbu waaw da a nëbbu ndax booba li kon nag bu defee rek ñuy sant baax rek xam naa bëgg ñu gën a guddal ñaan rek yàlla eh, ñu àgg ci jàmm rek te liñ ci raatan lépp yàlla da defal ñu ko te yéen ñu leen sant leen sant yéen yéen ñu boole ci liggéey bi waaw ndax liggéey yu moom ku la ci boole rek bëgg na laa dimbale waaw jërëgéen jëf sëñ Abdou Lahat moom sëñ Abdou ñëpp la waaw jërë jëf yal na yàlla yàlla yàlla fayal na ko te yàlla taas nañu ci barkeem wa axiru jërëjëf Cheikh Mamadou Mamoun waxtaan wi am na solo lool tabaarakallah jàngale na yeete na yaatal na itam indil nga nu wet yu bari yu wuute ci Sëriñ Abdou yoo xam ne mënees na cee jànge mënees na cee roye ci wàllu doylu personnalité gëm Sëriñ Tuubaa ubbiku yaatu dënn xam-xam macha allah wet yu baree bari indil nga nu ko ci diggam ak kilifay diine yi diggam ak bokk yi sa digganteek moom tabaarakallah diggam ak Cheikh Mamadou Fadel waxtaan wi yaatu na am na solo lool noo ngi lay ñaanal suñu borom euh, guddal fan wi. yokk wér gi. Euh, yéen yi nga am ci liggéeyal gu Serigne Touba sunu borom may la ci kàttan ba nga def ko ni nga ko bëggee. Euh, di sant mbokk yi nu àndaloon ci jataay bi di fàttali rek ne noo ngi waajal màggalu Serigne Abdoul